salaamaaleykum internet comme ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey jeudi 30 janvier 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi ma ciy ànd ak Amina Ndiaye maa ngi lay siyaare. siyaar naa la Omar di siyaar képp koo xamante ni daf ñuy suivre saa su nekk ci ak te di leen dalaatal jàmm ci seen xibaaru revue de presse. noonu la demee ñu ko ubbee ak journal bu libération mu ñëw ak ñun ci drogue bi nga xamante ne jàpp nañu ko ci port mu toll ci 120 kilogrammes toll ci 92 milliards mu nekk loo xamante ne nii. lu ñu reconnaître la foofu noonu. ñoo ko gisandoo port la takk der yi tegee loxo dorog bi nga xamante ni doon nañ ko fa jàllale gis nañ ni nag nekkoon na trois saisies yoo xamante ni ñett def nañ ko yeneen mode d'opération mais teewu ni ki ko doon transporter benn nit kese la yoon nag teg na leen loxo valeur bi mu ngi toll ci euh, quatre-vingt-douze milliards de francs CFA mu nekk loo xamante ni toq na trop ba tax na nag ñuy ñëwaat ci li nga xamante ni rek moo di film bi nan la demee appel anonyme bi nga xamante ni jot nañ ko mën a teg loxo ñooñu. mu nekk loo xamante ne dañoo def benn constat bu ci xaw a jaaxal muy bato bi tudd Grand Nigeria ci la ñu fekkoon temps yële passé dorog bu baree baree bari bari ñu doon teg ko foofu noonu nag mais li jaaxal gars yi mooy bato boobu bougé wu fa bu ñu fa jàppee dorog bi ba léegi ci boobule bato la ñu fekkaat cent vingt kilogrammes yooyu. affaire bi yooyu mais ñoo ko déggandoo bato bi nga xamante ni moom moo tudd Grande Nigeria ñu tegoon ko loxo ba yaakaaroon ni bato boobu quitté woon na port naka te bato bi mosu faa bougé centimètre moom moo fi indiwaat drogue bi nga xamante ni moom la takk der tegaat loxo maanaam douane bi nga xamante ni ñoom noo nekk ci géej bi di contrôler li fay jaar ak li fay jàll ñoom ñoo ko tegaat loxo. léegi nag ñuy laaj ba xam nag Grande Nigeria bi lan lañ doon xoolee ba jóge gu fi am déet. mu nekk loo xamante ni nag euh, yaakaar naa ne li ñu bind la rek ci journal bi. ñu desandi ba léegi ci libération sëriñu daara bi nga xamante ne ni da doon jàpp ay taalibeem di leen chaîne chaîne bu gudd bu toll ci seen 6 mètres yaakaar naa ne amee naa bu mu njaam la pën ba léegi wal dañ doon coow li nga xamante ni moom moo xewoon ca Louga sëriñu daara bi nga xamante ni da doon takk tànk taalibe yi comme ay esclave tey nag mi ngi xewee fële na la ci Kaolack saalum saalum yi foofu noonu seen mbokk yi tey ñoom ñoo ko def sëriñu daara bi nga xamante ni moom moo nekk foofu moom moo tudd doon wuyoo ci turu Serigne Cheikh moom nag moo doon jël benn chaine boo xamante ni boo ko doon meetere toll na ci 6 mètres donc takkee ay tànk taalibe mu nekk kawteef boo xamante ni nag journalu euh, Libération moom la xëy fësal. mu nekk loo xamante ne ni euh, yaakaar naa ni bu fekkee lu mbirum yoon la yoon la ci def liggéeyam bu fekkee lu ñu war a xoolaat la tamit dinañ ko xoolaat ñu jàll ci journal bu Grand Place Grand Place ñëw ak ñun ci ki nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna ci ay kàddu ci moom boobule ba tey nag ku ne xam na ne mi ngi ci prison bu rëbës ñi mu àndaloon ñëpp jugé nañu leen ba bàyyi leen moom rek moom moo fa des. ñoo ko dégg déggandoo Guy Marius Sagna mi nga xamante ni li ko dugaloon kaso bokk na ci manifestation bi mu doon amal eh, jëmale ko ci yokkutem courant bi def ko bu bunt pale nag bañ ko ne ndi dugal ko ci kaso bi boobu tey eh, jugé nañ ko génnul mais képp koo xamante ni jàppandoo nañ ko woon rek génn nga ba delluwaat sa mbokk ba tax na nag les droit de lome dugal nañ ci seen loxo taxaw teem pour ñu jëlee ki nga xamante ni moo di Guy mari Sagna ci kaso bi mais nag tax na Assane Dioma Ndiaye yëkkati ci ay kàddu te naan Guy Marius Sagna a été arrêté arbitrairement maanaam daal arrêté bi ñu ko arrêté dañ koo xool mu neex ko rek ñu def ko mais ñu ko fenn waaye Seydi sama tamit wax na ci nee na li nga xamante ni mooy arrêté bi ñu arrêté Guy Marius Sagna dafa nekk loo xamante ne règlement de compte politique la. mu nekk loo xamante ne ni bari na ay doomi aadama yu seen kàddu waaye bu ñu jëndee journal Grand Place dinañu ko ci gis. exploitation illégale d'or à Saraya moom la ñu indil tamit ci journalu Grand Place Amina Ndiaye. Grand Place bokk na ci xëtam yi njëkk yi exploitation d'or bi nga xamante ni dafa égale illégal ñu koy amal fële na la ci Saraya vingt cinq personne ñoo ko doon def yoon teg na leen loxo ak matériel bi nga xamante ni moom lañu doon utiliser. mu nekk loo xamante ne ni euh, jàpp nañu leen toll nañu ci vingt cinq personnes yoon teg leen loxo. ak ay matériels yi nga xamante ne yoroon nañu ko pour utilisation yaakaar naa ne loolu tamit mbirum yoon Lamina Ndiaye waaye ñu dem ci journal bu l'Observateur mu ñëw ak ñun ci Miss Sénégal deux vingt mu yoo ci turu Ndeye Fatma Dione Ndeye Fatma Dione ku ne dégg na critique yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi ko koy critiquer ku ne gis na wax yi nga xamante ne sénégale yi nga koy wax waaye moom Amina tontu du forox ci na ay kàddoom ci journal bi. waaye jamono jii gisoon nañ ni sénégalais yi doon nañu joué théâtre ay sketch yoo xamante ni neex na trop jëmale ko ci miss yi nga xamante ni ñoom ñoo présenté wu woon pour nekk Miss Sénégal 2020 ginnaaw nag kii nii ba mu ko faat ma euh, John gagné moom nag dafa mel ni ñëpp dañoo jublu ci moom amul lu ñu ko yàqul ci réseaux sociaux yi mais ni nga ko waxee rek tax tontu du forox te baax na nag mu takku ba mel ni naanaa rek. di dëggalaat boppam kani moom rafet na jongomale powam set na sénégalais cent pour cent la donc li nga xamante ni jël na ko da koo mérité critères yi nga xamante ni nag moom la ko ñu ñi def ci réseau sociaux yi nee na moom nekkul loo xamante ni bàyyi na ko xel te futur mi ngi prévoir nekk li nga xamante ni moo di journaliste wala animatrice bu télé. loolu moom mooy ay kàddoom Amina man nag daal lu ma seetlu ci miis yi ku ci paree rek journalisme ngay jéem a def wala nga nekk animatrice yaakaar ne choix la ñoom ñëpp. Euh, mbirum président yi président Turquie ak bu Sénégal fan yi gisaat nañu leen ñoom ñaar ñu gisantewaat mu mel ni président bu Turquie mu ngi ñëw ci suñu réew lu baree baree bari président turki bi Erdogan bi mooy quatrième fois muy ñëw Sénégal fii nii di toog ak Macky Sall di signé ak moom ay accord cette fois ci nag ñoo ngi jàpp rek ni Erdogan bokk na ci président yi nga xamante ni moom moo gën a mën a respecté ay accord am teg ci nag mu naan 1500 euh, émigrés yoo xamante ni ñoo ngi fële ci turki dafa mel ni dina leen baaxe ay këyit ñu nekk ci jàmm. mu nekk loo xamante ne ni euh, ñaari njiitum réew yi Amina dinañ ko xaatim muy Macky Sall ak Erdogan yaakaar naa ne ñoom ñaar ñi ngi déggoo ci ay kàddu. ndaxte li ñuy gisee mi ngi bëgg a bari nu jàlloon nag ci journal bu record journal ñëw ak ñun ci l'international sénégalais Ferdinand Coly mi nga xamante ne mi ngi fi woon en 2002 yàgg na ci équipe national def na fi lu kenn dul fàtte mu ñëwaat ci match Sénégal ak Togo match xam nga Sénégal ak Togo joué woon nañu 2005. Sénégal Togo joué woon nañu 2005 moo xam mu xam mu nekk loo xamante ni dafa tombé woon ak seen génération ñoom naa Ferdinand Coly ba tax na nag cette fois yi Sénégal di tasewaat ak Togo ci éliminatuwaaru éliminatoire vingt 2022 yi tax na nag mu yëkkati ci ay kàddu rekk te naan génération bii nii nga xamante ne ñoo fi nekk ñoom ñoo euh, gën a yaatu ba pare euh, gën a dëgër génération bi nga xamante ne ñoom ñoo fi jógee maanaam daal génération bi ñoom ñoo ëpp chance bu ñu jogante ak Togo ñu dóor leen ci bu nekk loo xamante ne ni ay fet Ferdinand Coly la li mu wax ni nag Amina Ndiaye daf ko waxee xol daf ko waxee ak gëm-gëm parce que boo xoolee génération bi ak génération bu 2002 wute na malgré nag nit ñi ñu ngi leen di jéem a comparer mais wute na ba tey ci journal bu record mu fësal Kalidou Koulibaly mu nekk ci Naples fan ñëpp na ku ci nekk mi ngi yëkkati ay kàddoom ñi naan dina dem Paris ñi naan dina dem Manchester United ñoo ko déggandoo Koulibaly dina dem Manchester wala dina dem Paris en tout cas daal lu ci mënti am na jàpp ni jamono ji Koulibaly mi ngi ci biir Italie mais nag benn journaliste italien yëkkati na ay kàddoom te naan Koulibaly jóge fii jóge ci Italie def taxaw na ba pare dafa mel ni signature dong moo ci des mais direction bi mu jëm moom pour le moment xamaguñ ko. pour le moment xamaguñu ko waaye comme le journal record dafa deux ans day ñëwaat tamit ci làmb Papa bi nga xamante ne jóge na ci écurie bu Fass. ginnaaw dàq bi ñu ko fa dàq ñu seetlu ni écurie bu Fass bari na ay mbër yoo xamante ne ni naa Ndiaye ñi ngi foo nekkoon bokkoon ci leader yi dañuy xëy xëy ñu dàq leen exemple bi Balla Diouf Papa Sow tey mu nekk loo xamante ne ne Papa ñu ngi xamal ni que day créé waat écurie ñoo ko gisandoo Papa ginnaaw ba mu jógee écurie bu faas ba tey mayuñu ko jàmm uh, benn yoon ba tax na nag Ballou Diouf mi nga xamante ni dafa mel ni mi ngi ci doon dox ay uh, tànk jàmm ci suuf bëgg rek Papa delluwaat ci écurie bu faas dafa mel ni loolu dafa mujjee avorté maanaam daal Papa li ci Ballou Diouf doon bébét yëpp mujjuta am. mujjuta am waaye Yaxya Jóob Yékini ancien roi des arènes moom itamit ci na ay kàddu jëmale ko ci seen de lutte jëmale ko ci làmb. CNG de lutte ci la Yékini di wax nee na daal CNG bi dafa nekk loo xamante ni war nañ koo tëggaat war nañ koo defaraat indiwaat fi ñu ñi ñu bees maanaam daal dafa jàpp ni ci biir CNG bi am na tilim tilim bu fi nekk boo xamante ni war nañ koo raxas. war nañu ko raxas ñu xoolaat naka la ñuy jéem a sawituwaatee CNG parce que CNG amina seen liggéey kenn du ne rafetul waaye war nañoo am benn changement boo xamante ne ni war na am ci biir g bu fekkee luñ fay yokk la ñu yokk ko fa bu fekkee ay poste la yoo xamante ni dañ koy defaraat ñu defaraat ko ndaxte luy defar làmb la te dafa war a jëm ca kanam ñu jeexalee ko ak journalu suñu làmb mu ñëw ci combat Ama Baldé ak Modou Lo daal du ñuy bindal amaa Baldé pour baatul Modou dem na fële nga xamante ni moom mooy ci INSEP bu Paris. ñoo ko gisandoo Ama Baldé mi nga xamante ni moom moo war a jàkkaarloo Modou Lo yàggatul dala ci ay weer suñu kanam dafa mel ni nag takku na ba dëgër dem fële ci INSEP bu Paris di waajal li nga xamante ni moom moo di combat. mu nekk loo xamante ne nii nag Amina làmb la buy neex làmb la buy am enjeu ci ñoom ñaar ñëpp. ba tax na Mouhamed Ali Ndiaye yëkkati ci ay kàddoom. Mouhamed Ali Ndiaye ak Moussa Fall ñum ñaar bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu pour ñu préparer euh, ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé ay expert tamit yoo xamante ne ci boxe la bokk nañ ci renfortu Ama Baldé ah ñu génne war li nga xamante ni rek moom moo di trésor bi nga xamante ni moom la Ama Baldé di waajalee combat muy quatre-vingt-dix millions de francs fa mu nekk loo xamante ne ni Amina làmb la buy neex. parce que boo xoolee amaa Baldé ak Modou Lo làmb la boo xamante ne nii différence taille bi demeewu fa noonu différence de poids bi demeewu fa noonu waaye même différence dage bi demeewu fa noonu dañuy xool rek ni làmb ji di amee loolooy ëpp solo làmb ji mu am na ci CNG de lutte jàpp. loolu moo ëpp solo. waaw ñoo ko gisandoo waaye tamit fësalaan na ki nga xamante ni moo di adversaire am bi mu war a dajanteel moo di moo di xalañ roo mi nga xamante ni moo di suñu roi des arènes ni ñuy waxee ak yéen nii loo nag dafa mel ni ginnaaw ba mu defee 21 jours fële na la ci États-Unis d'Amérique ñibbisiwaat na de. Modou loo ñibbisiwaat na ngir waajal li nga xamante ne nii xam naa mooy seen face to face parce que ñun ñaar war nañoo jàkkaarloo war nañu jàkkaarloo ci le 4 février ci TFM. mu nekk loo xamante ni ne ñu ñun ñëpp ko war a teewee bu fekkee CNG de lutte bi ànd na ci mu nekk combat boo xamante ne ñu bari sax Amina dañoo jàpp ne du am ci saison bi. loolu mooy nekk seen première face to face Modou Lo Ama Baldé fële la war a amee ci TFM la 4 février incha allah ci biir journal bi rek ñuy waxaat ne Willy Nicolai mi ngi dëggalaat ni face to face boobu dina am. kon na ñu gën a am yaakaar gën a am espoir que ni dina am dinañu gis Ama Baldé dinañu gis Modou ci kanamu écran bi ñoom ñaar ñu toog. ku ci nekk wax ak sa moroom lépp loo war a wax journal bi tëjee ko ak ci ginnaaw keroog bi Modou loo di daan Issa yi ci la Bécaye Mbaye suñu papa ji di yuuxu yuuxum wuree wanaan ko Issa munoo daanu daaneel. ñoo ko gisandoo flashback le journal suñu laa mu tëjee tey flashback 26 avril 2009 fële na la ci stade Demba Diop mu doxoon ci diggante Modou ak Issa Pouye ni arbitre bi soufflé Issa Pouye nekk gauche Modou Lo nekk droite ni ñu songee wéy seen combat ñoom ñaar ba Modou Lo ni mu daanee Issa Pouye lépp mu ngi ci bag bi. mu nekk loo xamante ne ni euh, ay archive u làmb la archive stade Demba Diop la gis nga ko ni mu yànjee nii stade la boo xamante ne nii Amina ci làmb moom rek a mën a mel nii ci làmb. stade la boo xamante ne nii dafa marke làmb moo tax bu ñu tëbee tëb rek ni làmb dootu fa am dina nekk lu métti ñu bari Amina. waaw dina métti ñu bari nag mais nag dafa mel ni li lañ leen indiloon ci ay xibaar lu neex du jeex te ku nuyoo ku nekk di nga tàggoo ñu leen di jaajëfal yéen ñëpp te di leen jox dig daje ba suba incha allah jaa ngeen noonu la demee mbokk yi ñu ngi leen jox dig ba suba incha allahu rabbi jaa ngeen jëf.